après les États-Unis ñu jël jet privé Pape Cheikh bi. <laughs> merci dama leen koy abal voilà daf ñu koy ma koy jox rek. ah ok d' accord mais nag dee ko ko loué dégg nga. Ah, moom dafa ba maa a lebal njagandu rek de. Mm, Davido bi nga xam ne ñëwoon na Sénégal Davido toj na Sénégal avant moo dem li mu fi def yëpp. déedéet man pour waxuma côté joué de. Ah. nga ne ma. mais mais mais on m'a dit juste dong la fi def. en fait morceaux yi bëriwul et puis. Ah, ay morceaux dafa xew rek non non en fait moom le problème. on m'a dit andiwul DJ andiwul. musicien andiwul musicien c'était pas en live benn kii. et man à mon avis artistes yi bu ñu ñëw Sénégal quand même war nañu respecter public bi. war nañu souvent ah, ils viennent en vacances après ils euh, pour occasion la pour ñoom ñu découvrir mais ils viennent comme si dañuy. mais euh, def. il est venu juste comme ça. ak ni ñu ko annoncé. ak ni ñu ko annoncé ñëpp di ko xalaat et puis mu ñëw sëgg suñu xale yi. voilà Davido. gaañ ay doom yu Davido peut-être bàyyi na fi doom xam nga. excuse non mais c'est eh. non pas oh c'est pas en face c'est vrai. quoi qu'on puisse dire c'est vrai gel yi dañ doon dem à son hôtel nekk ci suuf et tout ça et moom da doon yëgal ba pare da lay dàq apparemment. non non et il leur donnait genre dix mille francs. après euh, c'est vrai c'est dommage mais c'est vrai. waaw ñooñu ah. sargalu jigéen ñooñu sargalu Sénégal et puis man je pense que bu demee voilà man je me dis la faute c'est la femme sénégalais daf lay métti parce que bu dem danaa les sénégalais parce que ñooñu la gis. c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup de commentaires ci moom ci réseaux sociaux yi moi j'y croyais pas trop ah. non même pas matamata ah si waaw puisque ñoom tam toj nañ fi. ah ñoom boîte ba la ñu yenu. waaw mais suñu xale yee ko def ah. mais xale yi la la faute revient à la femme parce que parce que ok c'est des stars mais bu ñëwee fii ñoom dañ lay fooy dem seen yoon bu ñibbee ils vont même pas se souvenir. ah oui ils vont pas revenir. ñu ba mais ma ah, man comme li ñuy wax rek nit ku nekk jigéen bu nekk. da nga war am sa fulla bopp te jigéen li tax ñu naan jigéen. yow sa jëmm sa jëmm. moo tax ñu naan jigéen donc je crois que nit ku nekk. Ah, ah boo xamee sa bopp daal. no non mais aussi mënta nekk dëgg la dafa am ñoo xam ne c'est des groupes yi en ñoom. seen yoon nekku si l'essentiel na nga nekk star voilà après am na si benn gel boo xam ne yi daf ko photo pour te dire comment elle était fière d'avoir passé la nuit avec Davido elle a posté les photos c'est ainsi ci réseaux sociaux yi mais kooku dadul xalaat ndaxte bu fekkee groupies oui c'est des groupies sérieux mais bu yow bu fekkee mais loolu bésal la am euh, góor yi nga xam ne dañ nekk ay star ci leneen balaa muy indi discussion quoi suñu en tout cas daal li <laughs> Davido jël na suñu yëf muy def mën na ko quand même. mais nañ ko sëgg na suñu xale yi rek. Davido jël na suñuy yëf rek saax saaxee na suñuy xale rek. nañ ko ba pare dellu Nigéria. non clip bi neex na quand même Mado. non moom kay bëgg nañ ko ila di du talent et puis xew na mais bu ko euh, meree waaye Mado Mado kat mereel xale jigéen ñi na forcé wu leen. lekk bu ñu ñëwee Afrique bu ñu ñëwee Afrique duñ ko lekk. bi ñu nekk seen dëkk quoi duñu dara jamais. Ah. mais on l'aime en tout cas ah, le beneen clipam bi Aye daf ko ah. génnee ya a y a trois mois man de tax na ba ma bañ ko sincèrement aywa bu leen ko bañ mais Bessel bon artiste et je pense pas que ce soit de sa faute parce que forcé wul la ñëwal sama buntu hôtel yow yaa jóg dem foofu. ngóob gi la jël rek li fi gën a bon la jël rek. Eh, mais après ah moom même c'est un jeune il a 21 ans. <laughs> la ko naka lañ koy nga timbax ko yeeg. businessman yeeg. étudiant yi nekk France ak. tout le monde i est dedans. ah tout le monde. Gambien ah. yeeg. Ah, tout le monde. ana ko ana ko ak jabaram ni mu rafetee. man loolu yëpp waxuma ko de nga tudd foofu moom wuy ma. ak ñeneen ak ah, foofu. kan moom moom footballeur ak basketteur. ma ne man doogu ma la yow wax da nga mel ni da nga koo non mais et nag dëgg dëgg euh, euh, ku la wan lu baax nag nit nit nit rek la waaw góor góor rek la il est jeune encore il n'a que 21 ans aussi donc euh, t'as 21 ans t'as du succès elles dem defoon loolu mais quand même filles am valeur yaa ngi Sénégal ba tey voilà mais mais mais mais Tumbuk moom ñëpp a koy def moom waaw Tumbuk moom dëgg dëgg voilà tout le monde il est ah, ah waaw ah, ah ouais réalisateur yeeg ah. caméraman yeeg bu mu producteur yi nag. <laughs> te ñoom maa aussi mooy seen président eh, animateur yeeg. Ah. man waxuma dara. ñee nga eh, animateur yi nag ah, animateur yi nag ah. Sidaat mooy seen président. yaa waaw. yaa wax loolu. maa ko wax en direct laa ko wax. Mado doo wax journaliste nag. xam nga kan mooy seen président. Ah. ki dàq dosé ci journaliste yi bi journal kan la. Ah. Papa Ngagne Ndiaye. non mesdames messieurs bonsoir et bienvenue. Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane. <laughs> mooy seen président. Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane jawaram dafa fiir de bu ko bu ko dugal. Eh, mooy seen mu toll. voilà alors euh, bisou euh, Davido vidéo bi en tout ah, cas. on l'aime voilà. ça change par à ce qu'il mm-hmm. avait l'habitude de faire parce que tout le temps ay fan yu sophistiqué lay indi. cette fois-ci tradition nigériane indi. Mm. da ciy def ay tool sax. mariage euh, pas mariage mais benn couple princier je pense.